Thank you.

waaw mais dafa naa bi yaa ñu ne de ñu ngi ñu ñu ñu. installation moom la rafet na ah. waaw bii ah. Ah. ñeex loolu ah. di di di waaj a dugg euh, xar dugg ngoon quoi. muy muy tey euh, tey la jeudi. 14 moo doon dugg ñu war a vendredi 15. macha allah. ok mais grand. fa lañ toll. ah moom rafet na ah. Euh, ren moom 5 heures moom xanaa ku bëgg indi. ngeen daxaar waaw fi mooy mooy loolu. Eh, kon mbokk war ngeen a waajal parce que affaire bi macha allah ah ren ren moom ah ren allah yaa ne trop trop trop trop trop trop macha allah. waaw ah, mais baguette d'or waaw ah. moom daa daaw daaw waxtaanul waxtaanul ak waa Samagal mais ren moom Samagal il faut mu def ak mu fees. waaw. waaw grand. baguette door euh, ak ci bis bi avant avant bi mu teew ko sponsor bi moom. sponsor bi moom ah FC. foo leen toll. ah mais ni kontaan naa de. sama sama gaa TV moom lii day def en direct ñu waaj ñu waaj jël xar yi ngoon ah incha allah. Ah. Omar Touré mii di borom baguette d'or. waaw nekk nag ci ginnaaw ren bi. Ah. nga ren yi ne la yi que dañuy luxus wala dañuy nangam. waaw ah. mais dañuy wax ne. Euh, bu ñu amee doole moom ci la. côté ngeen di ñëw waaw. ndax bari na loo xamante ne nii dafa oyof tollu ndax moom. dëgg la. waaw kon ngi def lu doy ci ñun. incha allah nag du bëgg ñu wax. waaw mais bari na lu muy def ci ñun. incha allah. ñu koy daal gërëm nañu. baguette d'or moom lu muy def. paquet d'or borom paquet d'or borom paquet d'or mo xam na dem bo fa bo tardé ndogu ndoguli waaw dem ndoguli paquet d'or la won wa mais yeen la mburi mom dang koy xor rek sa xol bi neex naka ngay sou bon il faut sama gars dem fa ma la wax lolu mo de ñak il faut ma sama gars il faut mu dem sama gars di ñew paquet d'or ñu ñew wone naa la contacté ko jaajëf incha allah e eh, coach coach loo wax waaw comme d'habitude na woon foo woon rek. Ah. li moom. Ah. kenn ku nekk xam na ne moom mooy wétali gars yi ci ramadan bi. ah, ah. noo gisee noo gisee am na. innovation am na. nañ cere dool nañ ñeex. ñëw daal wóorul. wóorul waaw ñëpp nag. jaajëf. jaay eh. jël arrêt plan kii bi. voilà voilà taxaw léegi daal. d' abord. ah d' abord waaw d' abord. Yalla Sanki bir ben